biir jàmm ji kër Mbaye Fall mu ngi nekk askan bu yaa yaraax ndeysaan ikiri askan bu yaraax la nekk moom yëngu ñu ngi leewaatoo ñoom ñaar ndeysaan ñu ngi lewaatoo combat bi a yëngu leen ndeysaan ak sakaase joor sakaase moo la féetee càmmoñ ndaysaan yëngu leen sakaase yëngu leen sakaase ñu ngi leewaatoo ñoom ñaar ndaysaan yëngu leen sakaase yëmbu leen sakaase ñoom ñaar ñu ngi lewaatoo kii jiital tànk di joor ñoom ñaar ñëpp ku nekk jiital tànk càmmoñ sakaase tànk càmmoñ la jiital yëmbu leen tànk càmmoñ waaye mbokk yi bu leen jaawale ñaari mbëri ndaysaan ndax sakaase boo xoolee moo ngemboo ngemb lu bulali yëngu leen moo ngemboo ngemb Lagos bi ndaysaan ñoom ñaar a ngi noonu Jokaas na ndeysaan Jokaas na léegi moom Sakaase Sakaase yëngu leen ndeysaan la Jokaas na Jokaas na yëngu leen léegi cokkaas na Sakaase xaw ma fu muy mujj ak moom yëngu leen moo tent bopp Sakaase moo xaw a ngem boo Lagos bi fan lañ nar a mujj ñoom ñaar déplacement bi arbitre bi àtt na nee ko taxawal nga bëre ndaysaan arbitre bi nee na Sakaase taxawal nga bëre Sakaase taxawal nga bëre Sakaase yëngu leen ndaysaan Sakaase moo leen fete ndi joor yëngu leen moo fete càmmoñ yëngu leen caatu yaraax ko indi ndaysaan Sakaase iboobu kër Mbay Fall la àndal yaa ngi noonu Sakaase yëngu leen Sakaase yëngu leen bi am na déplacement bi ñëw na lan moo nar a xew cokkaas na ndeysaan na doon na jël na tànk ba jël na tànk ba takk na ko biñ na ko da daan wala déet bañ na yëngu leen ndeysaan Sakaase daan na ko waaw waaw daan na ko daan na ko Sakaase daan na yëngu leen wala ndeysaan wala yëngu yëngu leen daan na Sakaase ndeysaan yëngu leen daan na Sakaase xolal ma caatu yaraaxu ko indi félicité na ko waaw waaw làmb gi làmb gi ndeysaan